Ousmane Sonko par des éléments factuels urne laa la wax élection laa la wax les deux élections yi fi jàll yépp locale comme législative bépp boo xamante ne actuellement ci yeewee askan wi y a des maires yoo xamante ne kenn xamul seen tur ba léegi c'est tributaire de l'engagement de la popularité et de la détermination d'Ousmane Sonko une liste bu kenn xamul suppléante c'est lui qui a fait le tour du Sénégal yóbbu ko ci niveau bi mu nekk ba imposer ballottage bi nga xamante ne moom moo am assemblée nationale c'est-à-dire loolu boo ko nee bu nee fàng nga bëgg a wër di ko jeex da nga nar a sonn rek Malick mais loolu moom mooy la réalité du terrain. parce que moom moo nekkoon troisième d'accord léegi ki nekkoon deuxième dafa rejoindre kon c'est le chef incontestable de l'opposition loolu mënuñ ko dindi. loolu moom mooy li factuel actuellement bu ñuy wax dualité au sommet de la classe politique tout le monde parle de Macky Sall Ousmane Sonko c'est ça la réalité bu ñu jéem a daw loolu noonu di jéem ut ay tournure di wër-wër loo du loolu wax ji moom mooy Ousmane Sonko moom moo taxaw jàkkarloo par une opposition farouche déterminant ñëw jàkkaarloo ak waa ji loolu kenn mënu koo tindi te ci opposition bi jamono jii nii mais amul kenn koo xamante ne li mu fiy drainer ci ful li mu fiy am ci popularité te boo demee ci urne ba la mu fay am kenn am ko ci opposition. maintenant Benno Bokk Yaakaar day tas. foo ko teg. maître El Hadj Omar Youm géniteur de l'APR. Ah. un membre fondateur qui connaît mieux que quiconque l'appareil de l'APR moom moo ko wax. moom moo ne bu dul kii day tas.